nu soppi doxin ma gis nga tuwab li nu bayel dara baxu ci maniko anglais yi sax ci tane français maniko dem na rewu anglais yi ba gis yépp dem rewu français yi ba gis yépp maniko administration bu français baax wa bu anglais sax ko wax ko yépp mu ne man de dama jax maniko lutax mu ne man di nga ma wax sama rakki wax ndax ma nga doon formation ci Canada ñëw rek dal ci sama kaw wax ma ko pire ñetteelu fan bi nga ñëw wax ma ko pire danaa ko wax mu seet si la ngeen waxtaan walaay ndeysaan eh, léeg-léeg dañuy waxtaan waxtaanu daara pire di di waxante yu méttee métti waaye rek dafay baax ba parce que kum ca xamati keneen ku nu bokkal xalaat rek mu yónnee si ma ko nu waxtaan rek ndax nit it dana donn lenn te xam ni baaxul baaxul li nu donn ci tubaab yi baaxul baaxul mukk waaw li ñu doon ci tubaab yi administration boo xam ne problème bu ne daf koy bloqué boobu baaxul baaxul waay waaw dafa falu rek nekk président xaritam laa nag fi nga may gis lu ne la ñuy waxaat lu ne bu nu gisee yàlla fii yenent fii bu nu ca jógee wàcc ci iblis waaw iblis fii nanga yenn yi dafay rek ba tëdd ci suuf ni ma walla yaa wax dëkk ma ne ko nan ci sàkk pexe boobu eh, ma ne ko mu fallu rek ni ma waaw lu may jëkk ma ne ko yi may yépp jële ci sama loxo mu amul njëriñ ma ne ko amul benn njëriñ ma ne ko liggéeyal tubaab ba ba ngay dee nag baaxul ma ni ko te tubaab booy liggéey ak moom dangay liggéey ak moom ba ba ngay dee ndax bu la joxee la mu la jox dana ca dugal yoo xam ne dootu rëcc mukk moom nga fay nekkal ba ba ngay wuy ci sa borom ma ni ko boobu nag man mënu ko yëpp sànni ci àll ma ko mënuma ko de seen secret yëpp xam naa ko maa leen topp ba jël dugal bureau par bureau liggéeyukaay par liggéeyukaay ba xam lu muy def ma ne ko demul de ba ñu ko demul mukk mukk liggéey loo nit bu mu xëy dee te du ca am dara dara dara dara ma ne ko moom la boobu nag nun kenn yarul ci mukk ma ne ko sëriñ Babacar a ko nun muy principe bu wóor mu ni mag du fecc yàlla naa dee mag du fecc yàlla naa dee kaay ma jox la boutique bi nga liggéey baax na de ceeba ngi fi suukar a ngi fi kaanee ngi fi nangam a ngi fi te seeru boo amee ñeen ñeenti million rek baax na ñeenti million nga ay ci dugg ci ba ca biir doo ca génn mukk loo liggéey rek ñu lekk waaw te nag mat bu fecc yal naa dee baaxul de di ci waxtaan di ci waxtaan di ci waxtaan ndeysaan lu ne lu ne lu ne da koy xam boo ko xamul boo ca duggee du baax moo tax lii sëriñ Abdou wax ndeysaan maa ngi koy waxtaan ak Haj Moustapha si bërki démb benn ambassadeur boo xam ni def nu woowoon ca këram këram sorewul ak fi ma dëkk mat na léegi fukki at ak na mu ne man de yow rek laa bëgg waxtaan ma ne ko lu tax mu ne dama gis foo jëm ci mbooloo nga koy wax te ku muus du def loolu foo jëm rek ci mbooloo nga koy wax ma ne ko ci lañ ma yàgg ma ne ko mënuma ca dara bu ma doon reyi nit yi tàggoo wax ko ñëpp ma ne ko waaye rekk te di fexe mënuma ko tëju ci néeg rek di fexe ba mu sot mënuma ko lu may def ci mbooloo laa koy wax tay yi mu jeex benn waaw waaye kaay nu gise kaay nu fexe kaay nu def li dugg fii génn lii bi mukk du ma ko def mukk du ma ko def mukk li ma xam fii bu ma ko wax balaa tàkku sax aduna tukki waye duma ko wax mukk man nga may bal dima bal ba lor ma duma ko wax ba man na la bàyyi nga dima bal dima bal dima bal dima bal ba gaañ duma ko wax mukk doo ko waxee ndax loo xam ni boo ko waxee àdduna tas doo ko wax waaw doo ko wax ah. motax français yi anglais yi ñoo leen gën takk ñoo leen gën takk Cheikh El Hadj Malick wax na ko wax na ko góor gi Abdou Karim li kenn xamul kenn xamul Cheikh El Hadj Malick lu mu doon ci nit kenn xamul ndax yi mu xam dafa bare Abdou Karim li dafa dem ci colonie anglaise yi wër ba ñibbisi dem fekk ko ci Tiwaawan mu ni ko góor gi man de léegi maa ngay toxo dem ci anglais mu ni ko lu tax mu ni ko dañu jàmbure mu ni ko seen jàmbur gi dey kufur gu tar kufur gu tar kufur gu wax ko ñetti yoon fekk na seen férocité lay wax

yooyu iya, iya. boo ko xamal mu àdduna tukki yow ya, da ngay jàng rek ñu sëf la diplôme bu dul jeex dama dem ci benn réewu arab fekk fa benn waay ma ni ko kañ nga fi ñëw mu ni ma am naa fi ñaar fukki at ak la ma ni ko jàng nga bu baax ma jàng naa bu baax bu baax ma ni ko jàng nga bu baax jàng naa bu baax baax amna nga sama diplôme ma ne ko ñaata diplôme la mu ne mi juróom ñaari diplôme ma ne ko te de jàng bi dugal ci réew mi ma ne ko lo xalaat léegi nag mu ne ma jema dem ci rew ma rek set fu ma leen di jaarale ma ne ko ni waaw jéem wut rek fu ma leen jaarale ma ni ko baax na kon na daanu fa daje dégg ndeysaan may dox ba gis ko nag ma nga sëriñe ma ni ko naka la affaire ba def mu ni ma ah waaye man dëkk dañ ma doon nax rek nekk sama diplôme yi du woon dara dara dara dara ndeysaan nu ànd dooree lu mu ci xam dem na ci ñu ko nax rek ni ko rek jeex na kaala ko jox ko juróom-ñaari diplôme génn ca wallaay ndeysaan mu ni nag mi ngi ñëw fii pour rek orienter nit ñi ndeysaan te bu ñëwee kat xale bu jigéen bu tuutee ko téye orienté ko moom ba dootul xam fu mu jëm wallaay moo tax administration lu am solo la boo ko donnee te baaxul nag pour nga defaraat ko dafa jafe te tubaab yi seen administration ba ñu ngi ko xul ñoom fu ñu toll fu ñu toll na nga ko déglu ñu ngi ko tawat ñu ngi ko tawat fu ñu toll boo demee tugal dañu ko tawat fu toll xam ne baaxul te amuñu njàmbaaru soppi ko xam nañ ni baaxul mi amuñu njàmbaaru soppi ko ba li ci gën a metti mooy ñoom am nañu waaye ñi ñu ko donnale amuñu wallaay ndeysaan ko donnale amuñu waaye ñoom am nañu boo amee te la nga amee baaxul sax di nga mën muñ mi ki ko donnale te amul fu mu jëm dafa sonn ndeysaan sama mbokku séeréer ma eh, dafa dem rekk eh, eh, takki benn jigéen la mu dencoon yëpp yëpp yëpp mu def ko ca ndax kayit yéeg dugg a génn noos beeg yu kenn xamul ba affaire ba ni papa pëgg ndeysaan mënatu fa toog nag mu daw am ruq rek bu mu nekk waaye ma nga sonn amatul fenn fu mu jëm ba nag ku ko xamoon ca kër ndaw sa dajeeg moom mu ne ko yow kii du diw mu ne ah kay ko nekk yaa ngi dund mu ne ko dund gu ñàpp xam moo tax tubaab yi li noo ñaan mooy li ñu nu donnale bañ a yàq li nu yonent bi donnale loolu rek moo ci am solo nde kenn du ni nasax nañu ndax dëkk ku fa ñëw def fa saxaar muy taw def fa oto muy taw def fa ay fajukaay indi fa garab nasaxuloo tabax fay école na sa xulu waaye am na jikko yu doxul am na jikko yu doxul am na jikko yu doxul yo xamni neexu len sax ñom dañu koy tawat man ku ci bare wol la laa dañu ma tawat yenn jikko yi ci seen rew ni mu len def ak ni mu len metti ak ni mu yaq seen diine dañu koy tawat waaye nun bu nu ca jotee du ñu ko gëmee defe ni noo ci nekk waaw defe ni noo ci nekk seeni Cheybatu ku neex la dafa am benn njabootam bu ñëw Dakar rek gisatu ko mu di ko jël si tàggu Serigne Babacar si ba mu demee mu ni ko gis nga ko mu ni ko waaw mu ni ko ànd ngeen ñëw mu ni ko déedéet ñemeetuma ko ndax ma nga sol yooyu la tubaab yee sol ba takk morso ba ca baat waaw wallaay ndeysaan ndeke karawaat lay wax góor gi dafa ree ci suuf ni ko yaay yaay de mënu ko falaa ko bàyyi ndax yooyu tubaab yee sol daal sol na ko ba ca morso ba ca baat ba ma ngi ko takk waaw waaye yooyu yëpp li la ciy dimbale mooy nga gëm li ni jonn te nekku fi maanaam gisuloo ko te mi ngi fi ni jom nga gëm ko dana la dëgëral ndax bu jiitoo lu dikkati rekk daa xam foo koy jaar bu jiitoo lu dikkati rek nga xam foo koy jaar waaye bu jiituwul musibaam dafa jur yàqu-yàqu yu bare te doom yépp war nañ ko xam xam ni li ñu fi bàyyi bi ñuy jàngi moo gën kon nag bu ñu jàngee ba ñëw mën nañ ko tabaxe ci kaw li ñu fi tegoon ëpp na ñàkk def waaye ki dem ba bañ yëfam boo naa ko donn yaa ngi yàq waaw ah, ki dem ba bañ yëfam tàyyi ca tàyyi ca xam ni la mu ca defoon yëpp bari na ci lu jubul ah bu la taxee salit yëw jaru ko jaru ko mukk ba moo tax wa laqad alimtum an nachata al ula yàlla ne jël naa ndox jaarale ci way jur bu góor way jur bu jigéen jël ëmb juróom-ñeenti weer génne ma sàmm ñu nàmpal ba mu fer ne ma sàmm ba mu waaxu dem jàngi ma sàmm ba mu tabax kër ne ma sàmm ba mu màggee ne ma sàmm ba mu jóge fi nee na dund bu jëkk baa ngoog boo ko xamul ne bu ñaareel baa ngi ci man boo ñëwee fekk ko fi waaw en dund bu njëkk baa nga mais bu ñaareel baa ngi ci man boo ñëwee fekk ko bii nag ku ko gëmul doo gëm boobu waaw